fi la sunu yonnen ba woo wuutu fi samsul huda fi la jote ay martabaam seere sa baay maamuro la sunu yonnen ba woo wuutu fi samsul huda في لجداي مرتبام سير سباي مامورو بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ندعو إلى الله سلامه وبركاته إلى سيدنا عبد الله ابن سيدنا عيسى روح الله ابن محمد رسول الله عليهما الصلاة والسلام وكل ما فعل جليل فهو جميل بوك جولي دال سوات نانيو تي لاينت بير تي لي بوك تا موي واتو سيدنا عيسى تي اسلام ngir mën a digab yàlla bi ñu waxoon ni Issa dina ñëwaat dégg nañ fi léegi ay kàddu yu am solo di ay baxaru yu yu jaam yàlla yëkkati léegi ni fii la sunu yeneen bawoo fii la jote ay martabam mu dem ba mu yàgg mu fàttali jamoon ni fii la alxuraan di soow naan isaa reyeesu ko moom béyti maamur lay bawoo day jëlaat si diine ji kon la moo waxoon ne dama ñëw pour dëggal yonent yi pour confirmer bis bi lañ ko doon xaar muy bis bu am solo boo xam ni ñëpp ko bokk ku yàlla bind rek am nga ci wàll kon fu waay mën a nekk la sëñ Ablaye waxoon ku yokkul wàññi ñuy ñaan yàlla yokk ndax jamono dox na lu bare yàlla def fi lu ne muy loo xam ne lu jara bàyyi xel la ndax Isa mooy màndargam sax dëgg la den wax ne lu ñëpp bokk la fu waay mën a nekk boo ko déggee te mu wóor ni bu Isa bu ñëwee ba dem àdduna jeex na na nga xam ne tey jii kat yaa ngi ci njeexitu jamono ndax li mu waxoon démb moom la confirmé fii bi mu fekkee gars yi di jaamu waxoon naa ko daaw daf ne wàcc leen état si tout ce que vous voyez là il ne restera de pierre sur pierre qui ne soit renversé di dëggal ne yonent yàlla isaa wàcc na waaye tax mu wàcc mooy xamal ne yàlla juru ko te mosu ko wax li mu wax mooy dafa am bàyyi kom ñëpp am ndey am comme ñëpp yàlla tànnal na ko baay bi gën ci bàyyi yi di muhammadu rasulullah di seydina limaamu tànnal na ko yaay yi gën ci yaay yi ci jamono yooyu ñu war ko mën a jël ku gën war ko jël di yaa faati mbenga laay mu wàcc fii ci yaraax daal di nag jullee baayam bi nga xam ne bi mu génne àdduna démb ci Médine kenn jullee wu ko muhammadu rasulullah bi mu génne àdduna ñeenti kàbbar yi ma daan defal jullit ñi kenn defalu ko ko kon kekk war defal moo ñëwagul moo tax démb da doon nelaw te yeewu na moo tax bàyyi la ne ka doon nelaw yeewu na Mamadou naama way xasa Mamadou bi mu yeewoo nag fi lay door a génn àdduna Isaa moo kàbbar ci ginnaawam ñeenti kàbbar ya mu daan kàbbaral jullit ñi kon fii lay door a faatoo fii lañ koy door a ma remplacer ndax lu toll na islaam yaatu loolu ànd ak xéewal benn doom Mamadou Rasulullaay remplacer wu ko ci loolu xel nanguwu ko ay jàmbur rek ñoo ko doon remplacé démb fii ne def ni ginaar yi nen ginaar ga nen na naan nen yaa limaamu lu mu jur limaamu la kon fii lañ koy doon ne ci islaam ci géño ndax démb dañ ni abtar la yàlla ni ko déet ñu lay wax abtar ñoom ñooy abtar ndax tey képp ku xoon di Muhammadu sallallahu alayhi wasallam da ngaa këttalee amoo njaboot ñàkk doon wax ñëpp kenn xamatul seen njaboot waaye tey jii xam nañ njabootam ci isaa kon loolu la ñu amoon lu ñuy barkeeloo di wax jamono yi fii moo mënu ko dañ ko teg suñu loxo di ñaan yàlla képp koo xam ne loolu intéressé woon na la yëf yaa ngi ne liggéey bi ubbi nañ ko yaatal nañ ko laay maxtaar yàlla na sunu muur. kàddu gi nag bu ñu ko déggee xam ne am na lu am lan moo am bés bu mag lañu jëm bés bu historique bés bu adduna bi yëpp ko war a màggal ummatul islaam ñëpp ko war a màggal ndax li tax muy bés la bu yàlla tuddal boppam bés la bu sallallahu alayhi wa sallam tuddal boppam waaye bés la boo xamante ne bii bu amul woon mu doy waar lool nan la ko yàlla tuddale boppam oustaz wax na ko léegi yàlla dafa wax ne Isaa day ñëw dafay wàcc ndax maa ko yéege woon sama fam sama fam fa sama wet ne rayu ko dëggantaan man maa ko bal rafaahu ilayhi maa ko yéegal ci sama wet te comme ni mu ko waxee rek dana dellu si waat ami njaboot war a génne àdduna kon dafa war a dellu si sallallahu alayhi wa sallam waxal ko boppam mu war a wàcc pour lan war a pour lan

day feesal suuf ak màndute day feesal suuf ak njub day feesal suuf ak leer nañ comme ñu ko fekkee woon mu feese ak jeng ak tooñ kon nag bés boobu moom lañu war a màggal incha allah yal nañ ci yàlla yóbbu ak jam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin seydina abdoulaye yal na fi yàgg te ànd ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullah